asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu foo leen mën a nekk ci àdduna bi di ñaanal cheikh mohamadul muntaqa mi nekk ci bopp njabootu cheikhul xadim suñu boroom yàggal ko te wéral ko ku ñaanal njabootu sëriñ Tuubaa gi yépp di ñaanal xalifatu maam borom Cham sëriñ Abdullahi yàllaay boobu di ziyaara yi borom ëtt bi nu nekk tey muy sëriñ Cheikh Tedd xalifatu sëriñ Baara Xureja jataay bii nu ànd ak yéen nag mbokk yi ni seetaan mooy jataay bi nga xam ne dañu koy waajale bis bu màgg bu nekk suñu kanam muy bis boo xam ne dañu koy defal sëriñ Baara Xureja moom maam borom Cham tam amee ci penc bi nu nekk di Cham ñu nekk ci ëttu xalifaam di sëriñ Cheikh Tend feggoo it ak njaboot gi fas yéene ànd ak bokk yi ngir nafar dund ak liggéey ak jaar-jaar yi sëriñ Bara Khourédia ñu seq ko ak njaboot gi ginnaaw bi ñu nekkee ci ëttu sëriñ bi ñoo ngi feggoo it ak ñenn ci sëti sëriñ Bara yi ñoom it ñu fekk jotaay bi incha allah xam naa dañuy Euh, tudd ñenn ñi waaye bu ci kanamee danañ ci leeralaat ñeneen sëriñ Abibu Mbàkke moom sëriñ Modou Cheikh euh, ak sëriñ Jili sëriñ Sidi sëriñ Ahma ñoom ñëpp noo ngi leen di nuyu bu baax di nuyu sët yi nga xam ne it ñoo ànd ak ñun ci organisation bi bokk yi nu fas yéene ànd ak euh, bokk yi di Touba Vision ak asalaami point ak Murit Info ak académie ànd ak RFM ak RTS Touba Mbacké FM ak Benno FM ñu fas yéene nag waxtaan ay tomb yoo xam ne seq koy ak ñenn ci njaboot gi ñoo xam ne xam nañu lu ñu bëgg a ginnaaw ba ñu ci bokkee ba noppi ñu defaat yitte ci gëstu ko ba xam ko ñu nu fas yéene àndal ci jataay bi mooy Serigne Mourtada Mbacké moom Serigne Cheikh Bara Khourédia ak Serigne Mame Balla Mbacke moom Serigne Khadim moom Serigne Baara ak Serigne Cheikhouna moom Serigne Sidiye moom Serigne Baara kon day mel ni njaboot gi lañu ñu àndalaat jataay bi fas yéene ànd ak ñoom waxtaan wi bokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp yëpp ci biir adduna bi yëpp fu ñu mën a nekk jataay bi daam fii ci béréb bii euh, fàttaliku nit ku baax nag day ay ngëneel yu rëy di ca nekk ndax dana waral yërmande suñu borom. dana waral cofeel tab bi ci jaam bi ci diggante bi nit ku baax te boroom xam-xam yi wax nañu ne kenn jaamuwul yàlla lu ëpp bëgg nitu yàlla ndax bëgg nitu yàlla tegtal la ci bëgg yàlla sa borom te kon bu ñu waxtaanee nitu yàlla nga sopp ko la la la jural texe ndax inna mahabbati awliyaa al axyaar kanzun aziim min kunuuzillah id la yuhibbuhum ila man aradallah am yabus kon ki yàlla nummul ci moom mu texe du def ci xolam mu bëgg nitu yàlla Euh, kon dañuy tàmbalee jotaay bi incha allah ngir jëkkalante waxtu wi ci sëriñ Mourtada moom sëriñ Cheikh ngir mu andil nu njëlbeen feeñaay feeñu kilifa gu baax gi ñuy waxtaane sëriñ Bara Khourédia ndax jëmm ku ko bëgg a waxtaane xaw nga waxtaane wàccaayam ak ñëw jamono ak ni mu ñëwee jamono loolu dana tax ki koy déglu lu ñu ca nettali ci lu baax mu am lu ñuy jariñ ndax sëriñ Tuubaa dana wax ne baax yi bokk dana waral la sa jëf mënta may it see see seenu baax yóbbu la ci ndax wal baladu tayyibu kon loolu moo tax ñu ngi tàmbalee waxtaan ci Serigne Mourtada kon Serigne bi dañuy bàyyi nga nuyoo nuyoo yi mën naa ak waxtaan wi ndax bu ñu bëggee kenn ku nekk nuyoo ñu door a tàmbali waaye ku nu jox kàddu gi rek seen nuyoo day ànd ak laaj bu njëkk bi muy Serigne Bara Khourédia feeñu jamonoom loolu la ñuy njëkkee ci waxtaan wi ginnaaw bu nga xamee ne nuyoo nga ak bokk yi. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ixwatul kiram assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi sant yàlla bu baax di julliwaat ci yonente bi aleyhi salaatu wassalaam di santaat Sëriñ Tuubaa sunu yaakaar tey ëllëg di jiital kàddu yu nuyoo ak siyaar di siyaare Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal sunu borom mu dolli yàgg dolli wér li mu yéenee liggéey seen ci waa lépp mu defee ko nu kawe njort te ànd ko moom di ko ñaanal it sëñ Abdoulahi yàllaay buur muy xalifa borom saam di ko sëriñ Gànn ñaane léegi moom it sunu borom te ko kàttan ba yéeneem ci kër borom saam mu defe ko lu njort te nu ànd ko moom dëkk fii ci jat fii ci jataay bi ci att bi di fi ñaanal kilifa gu baax gi fi nekk nga xam ne mooy sababu li ñuy bëgg a def ñu sëriñ Seex Tàdda Mbàkke di xalifa sëriñ Baara Xureeja naan sunu borom mu dolli ko fan gudd lool ànd ak wér ak mbooleem njabootu sëriñ Baara Xureeja gi yépp moo xam ay sët lañ moo xam ay doom lañ moo xam it ay taalibe lañ xam naa ci suñ gànd ci li nga laaj bu ñu ñëwee ci nga ne àdduna ak sëriñ Baara Xureja sëriñ Baara Xureja mi ngi gane àdduna ci atum 1895 sëriñ Baara Xureja it hmm. boroom saam mooy woyu juróom ñu xam ko ci Mame Soxna jaar mi nga xam ne moo bokk ak Serigne Touba ñaari wayjur doonoon magam ak soxna su baax suñuy wax soxna xureeja xule mi ngi gane àdduna it ci Mbàkke Bawol bi mu feeñee jamono it sëriñ Touba jamono jooja fekk na sëñ Muso bi génn àdduna wax nañ ne bi muy jaale ji sëriñ Musoobe ba demee la fa fekk gan googu fekk muy tàggu ji waale borom saam moom it ci tukkeem bu rëy boobu nga xam ne mooy mbégteem mboolem jullit yi di mbégteem mboolem murit yi tukkeem bu rëy boobu nga xam ne ca la doon waxe xarat yow masat saa min asar li xidmatil muxtaari fii saari safar ci jamono jooja la sëriñ Bara Khourédia gane bi mu ñëwee borom saam wax ko ko ca la ko joxe turu muhammad sallallahu alayhi wa sallam lañu ko tudde wax ne it moom sëriñ Tuubaa ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo sàkku ci man ma tudde ko ko kon loolu it di ay ngëneel yu rëy rëy ndax ba feeñee jamono rek ci borom saam doyoon na sëkk ñu ne way juram mooy borom ñu ne ci waxtu wi mu ganee jamono nga xam ne jamono jooju mooy ji Serigne Touba wane bëggam dëgg ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggam dëgg ci liggéeyal suñu borom mu ne ci wàccaay woowu mu ganee jamono ci jooju waxtu loolu di ngëneel lu rëy bi ci des mu amaat leneen ngëneel mu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam sàkku ci Serigne Touba mu tuddoo wax nañ ne ci boobu jataay. sëriñ bi def na ca tekk ab diir eh, bi mu dellu siwaatee ci tekk jooju wax waram sàmm ne ko ah tekk di xanaa na leen mu ne ko ah, xanaa ñu sàkku ci leeral mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi moo doon sàkku ma tudde ko ci la ko joxe Muhammadul Amin bi mu ko tuddee bi ba noppi daa wax ne jëmm a ngi nii joo xam ne def naa ci moom lool su demoon ba ràññee mooy yegg ci ak mag xam-xàmmee su ma nekkoon jot lim ak sata la bu ko defuti du ko wàññi dara kon mu mel ne sëñ Bara Khourédia ngëneel yi mu feeñaale ci bi mu gënee jamono loolu daf caa bokk mooy defar goo xam ne dootul ànd ak yàqu sëñ Bara Khourédia kon bi mu feeñaale la daal defaru te sëñ Tuubaa nag defar ndax sëñ waaw du defar ba noppi di yàq ci lañ xam waaye nag kum def ci yow mbir su mbir ma melut nag na na ko defee rek mën na koo soppi waaye nag sëñ Bara Khourédia moom di jag li di jagleem mooy moom bi mu feeñee jamono rek def naa ci moom loo xam ne yàq weesu na ca mooy bu demoon bay ba ràññee su ma ne ko jot li ma sat la bu ko deful daal du ko defee. xam naa su fekkee ne dañuy gën a euh, gàttal ngir yaa jàll ci yeneen mbokk yi mu jàll euh, ba dellusiwaat waaye daal noonu moo di feeñ jamono loolu mooy xar baax ci feeñ jamono loolu it mooy ay ngëneelam bu kanamee dinañ dellusi ci ngëneeli sëñ ngëneeli sëñ Bara Xëy Jom sëñ Tuubaa lu ko xamal. ci bunt boobu mu ñandil leeral ñu feeñu jamono. sëriñ Baara Xuréjeen ci pàkk bu sell bi di mbàkk yi nga xam ne fi la Seexul Xadim feeñe fi la it way juróom maam borom Cham feeñe mu feeñee ci jamono boo xam ne nag ndax dañuy wax ne léegi-léegi waxtu wi nit kiy feeñ ak bërëb bi mu feeñee lay joué ci ab loolu day feeñ ci mi ngi fekk seen bi kon di wuti ngëneel ak di waaj liggéey boo xam ne ci la njariñul àdduna nekk ak njariñul àlaxira te mooy dox gi mu dox di liggéey li sallallahu alayhi wa sallam tawfiix jooju rek doyoon na sëkk ci sëriñ bi tànnal ko aw tuur waaye it def ci moom loo xam ne la muy tekki mooy defar gu duutu yàqu ndax sëriñ bi comme def ci yow ba noppi garanti ne bu la santoon jëf nga gàntal ko it duutu ca yàq dara loolu la muy tekki mooy defar gi duutu yàqu ko kon loolu ngëneel la ci feeñam waaye ngëneel la it ci digganteem ak sëriñ bi kon dafay mel ni sëriñ Mame la bu ñu tuddee jëmm wax way juróom askanam ndax maam borom sàmm ran yu naan yu taarif doy na ci boo ko tuddee moog Cheikhul Khadim ñoo bokk lépp da dellu ca Sayyidatuna Fatima ndax Asan ak Useynu ca nga jëm ak Sayyidatuna Fatima kon ay sharif lañu yoo xam ne ci umman wa abba nag nga xam ne Mbàkke Mbusoobe boo leen toppee lépp seen si sile si la ci Yonent bi sallallahu alayhi lay dellu kon man nga ne it moom it ci shurafa yi la bokk ndax ñooñu ko meññ waaye bi mu feeñee jamono it ku mel noonu di yi borom Cham mi nga xam ne ku ne xam ne ko ci xam-xam ak fees bëgg nañoo xamul rexdatu on alimiye ñu maanaam ci wàllu xam-xamam wàllu njàngam fi mu ci jaar ñu ñëw ci euh, sëriñ Mame Balla door a dellu siwaat ci beneen tomb bi ànd ceeg sëriñ Cheikhouna ndax day ay tomb yu xaw a wuute te bari te bëgg nañ benn bu nekk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 sayyidina wa mawlaana muhammadin al amin wa ala wa saxaabatihi al wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokk yi assalaamu wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mboole mbokk yi toog ci jotaay bi waaye balaa ñu jotal nuyoo googu dañ ciy jiital xalifatul am li taifatil muridiya cheikh muhammadul muntaqa ni cheikh muhammadul muntaqa ibnu cheikh muhammadul basir waaye ñu tottal ci jàmbaar ju tedd ju màgg tooge fi jotaayu maam borom Cham mi nga xam ni tey mooy waajuru ku tedd kii ñuy waxtaane comme ni ko si suñ Mouhamadou Mourtada leeralee léegi waaye tamit ñu man cee jaare ngir mën a nuyoo jotal am nuyoo ci kilifa jotaay bi nga xam ni tey ñi fi teew ñëpp ak njaboot njabootam la muy Serigne Cheikh Tedd ibnu sëriñ Bara Khourédia di ko ñaanal sunu borom guddal aw fanam ba mu yeggale naal yi mu sumb yëpp waaye di nuyu jotaay bi ñëpp yaakaar naa ne suñu nuyoo kilifa yu baax yi fi teew tey sët ci borom pénc mi jotaale na ñëpp waaye mu mel ni balaa naa ñëw ci question boobu Serigne jox ñu dañuy am benn temps li xar bu ndaw boo xam ne dañ ko def du sori ci li Serigne Mourtada wax ci wàllum feeñam ak. ak feeñu jamono nit ki ñu ko ñu ko seen gànna leeralee am na solo lool ci ci day def ay jeexit ci nit day am tasiir mu ci def ndax bu ñu fàtte ne sunu borom ci boppam moo ñu njëkk a tegtal ni aw askan moom moo ko def moom moo moom moom la soob mu def ko te loolu am na lu muy présenté ci doomu aadama ndax moo ni baada aoudu billahi min asheytan rajim mu ni yaa ayuha nnaas inna xalaxnaakum min dakari wa unta wa jaalnaakum shuuban wa qabaila waaye lam ca teg li taarafu waaye nag in akramakum indallahi atqaakum kon ci dayu nit ki ak fi muy àgg moo koy liggéeyal boppam waaye nag bu ñu la boolee ci askan bu baax may nañ la li naan force muy may nañ la occasion pour nga mën a baax ndax loola bokk na ci yi nga xam ni yonte bi sallallahu alayhi wa wax na ko ni ci xadis boo xam ne dafay wax ni muttafiqun alayhi la muy bu la dafa wax ni tunkaxul mar'a dañ denc jigéen kon mu ni tunkaxul mar'a li arba'in mu ni li maaliha wali xasabiha wali jamaaliha wali diiniha fasfar bi daati diin taribat ya daag maanaam comme mu ni danañ denc soxna ci ñetti critère mooy ci ñetti critère ci ci ñeenti critère mu dees na ko denc ngir alalam waaye ngir ngir askanam ngir taaram waaye ngir diineem waaye nag bu la doon digal moom kam la digal mooy borom diine kooku mu kooku moom la gën a xemeem kon loola tànnaloo googu mu ñuy tànnaloo kon dafay wane ni nit ki ci ay waajuram am na lu muy présenté ci moom bokk na ci la saa ba doon tàggee yonante bi sallallahu alayhi wa ci ni ko bi laata sa boroom di la yabal ngay ñëw àdduna daf laa tànnal fi lay jaarale bokk na ca mu ni ko wabadaa lil lil wujoodi minka karimun min karimin aabaauhu kuramaau waaye lam tazal fi damaa'iril kawni taxtaaru lakal ummahaat wal aabaau ñu ko suñu borom ndax laa tànnal fi mu lay jaarale tànnal la ay ay baay ak i ak i waajuru jigéen ci noonu ko mën a waxee tànnal ko ay waajur daan kon sunu boroom moo njëkk di préparer li muy yabal ci adduna ngir mu jaare ci yoon woo xamante ni kenn du mën a du mën a jaar ci benn yoon ngir mën koo ngaañ yaakaar naa ni ko mën nañoo misaal ni Serigne Bara suñu borom foofu la ko jaarale ndax kuñ ni borom Cham mooy sa waajur ñu ne borom Cham ak Cheikhul Khadim ñoo bokk lépp te yaakaar naa ni tey ku ñuy tudd tudd Serigne Touba doyoon nañu ni kooku moom la bokkal loolu ab temps yu xat bu gàtt la waaye kon dañuy jàll mubasharatan ci question bi nga xam ne moom la posé muy Serigne Serigne Bara ak mu jàngal loolu yaakaar naa du luy luy jafee waxtaanee ndaxte ku ñu ne Serigne Mor mu soxna jaara mooy sa waajur sam njàng ci ci yoon rek lay tege ndax koo xam ni ci ni nu ko waxee mooy ki daan wéralal ki daan tooral mag ñi ci njàng di leen di leen xoolal kon kooka balaa liñ naan maanaam liñ naan séddale ci sa bopp ngay commencé kon kooka du bàyyi njabootam Sëñ Baara mi ngi am njàngam ci peggu waajuram mu dalal ko alxuraan comme ni ko doomi soxna yi di defee bu ñu ko dalalee alxuraan mu yeggalee ci sëriñ bu ñu naan sëriñ ma gajaga doona mag moo xam ni sëriñ mor mu soxna jaara moo ko tànnoon teg ko ci wetam muy jàngale fa la jànge alxuraan ba mokkal bu yéeme bu doy waar boo xam ni ñu ko daan yéemu bari na waaye nag ba mu ca paree dafa am loo xam ni ci doomi soxna boo paree ci jàngum alxuraan dafa am loo ca teg muy sàkku xam-xam ndax day li war ci li njëkk war ci mukallaf comme ni ko Serigne Touba waxee ni awalu ma awjabahu rahmaanu qatan ala al mukallafi l tummata maarifatu ma bi faraida al ayni jamian fantabia mu ne ka xukmi sawmin wa taharatin salaat fardan wa naflan wa ka wa sakaat mu ne li njëkk war ci asmus kalaf mooy mu gëm sunu borom gannaaw ba mu gëmee sunu borom ba pare nag mooy dafa war a dem xam ban yoon lay jaar ban yoon lay jaar ngir jaamu boroomam muy la aju ca xam-xamu fiq wala ca xam-xamu tawxid na ñu gëmee suñu borom la aju ca xam-xamu fiq la aju xam-xamu tasawuf suñ suñ baara nekkoon koo xam ne dafa soxla woon xam-xam lool defoon ko yitteem bi ñu ko yóbbee ci mu jàng wax nañ ni bi mu paree ci ba jógee ci njàng alxuraan ma wax nañu ni la doon jàngee ci mbusóor bi nekk foofu wax nañ ni Serigne Cheikh Bousso nga xam ni bokk na ci ñu ko jàngal Serigne Cheikh Bousso mi nga xam ne mooy taawu Serigne Bousso bi bokk na ci ñu ko jàngal bokk na ci tamit maam Thiam maam Thiam Ibra Faati te ku nekk xamoon ko ci xam-xam ak njàmbaar ndax mënees noo wax mënees naa wax ni comme ni ko waykat bi di waxee naan ko bàmbaa ni ko baa bàmbaa ni ko bàyyi ceernoo jàngal ñi fi raw bàyyi saxaay kon Serigne Serigne Bara Khourédia comme que ceernoo jàngal ñi fi bàyyi saxaay kon Serigne Bara Khourédia moom ci ñi fi la bokk ndax ki jàngal ñi fi moo ko jàngal kon siñ siñ baara xam-xamam xam-xam bu bu yéeme la woon bëggoon xam-xam lool mu mel ni dafay dëppoo dafay jëfee ndigalu Serigne Touba ci ñu ñu digalee ñu yittewoo xam-xam wax na ni yaa maxshara yaa maxshara shubaan in xiftum xajal fa xaddimu taalluman ala amal kon Sëñ Baara moom bi mu paree ci jàng alxuraan dafa dem dégg ma lanu lanu Sëriñ jàngaloon mooy xam-xam mu dégg ma ba tey am na fu Sëriñ Tubaa di waxee ni wa baadu faalam anna xayra man faatahu haadaani fi dunyaahu mustaxilan bil maali am mawlaahu fama lahu gadan diwal siwal adaabi wa nixmatullaahi bila tuyaabi muy daan xam-xam lu nit di mën a soxlawoo jàppal ni xam-xam mooy la ca gën waaye boo soxlawut xam-xam dem soxlawoo laneen lu dul xam-xam mu ne muy alal wala lu mu mën a doon jàppal ni lam lay jural ëllëg du lu dul am mbugal ak mberum suñu borom subhanahu tabaraka wa taala farian bi laa yaa ngi ci musal waaye tamit bi mu bi mu jugee ci loolu daf ñoo xamal léegi xam-xam ban façon xam-xam lañ war a xam mu ni kon hada wa xayrul ilmi yaa iqwaani ilmin ilmun yuqarribu ila ka ilmi tawxiidi maa tasawufi wal fiqi wa amadu bila tasawufi mu wax ñu ni xam-xam bi gën bi ñu war a xamu nga xam ne mooy bi siñ siñ demoon di ko xam lu ci gaa yu baax yooyu mooy xam-xamu fiq tawxiid fiq ak tasawuf muy xam-xam yi nga xam ni mooy faraidul ayn yi nga xam ni kenn mënatul kenn mën loo ko defal yaa ko jëf sa bopp yooyu la soxlawoo dem xam xam la ju ko waaye xam-xam ban ban ban rul la am ci doomu aadama Sëriñ Tuubaa jàngal nañu ko nee ñu al ilmu wal amalu jawharaani li xayri yat daare ni yajlubaani xam-xam ak jëfe ak liggéey mooy li nga xam ni mooy ngën gi ndàmm gi nga xam ni ngën gi koom gi nga xam ne dafay xëcc doomu aadama bi jële jëme ko ci yiwu ñaari kër yi muy àdduna ak alaaxira waaye nga gis ni kon bi mu bi mu paree ci njàngu alxuraan li dal ñu bari léegi ci da ngay jàng ñaari téere ñett pare ca dem dem dugg ci laneen moom loolu dal ko dafa géeju ci xam-xam ba am ci ay may yu baree bari waaye tamit ñu met ñu gis ni gaaw gaawe gaaw yi dem jëm ci xam-xam loolu Sëriñ Tuubaa daf ñu ko digaloon ndax wala tu aqiru ila ta wala tu wala tu aqiru taallumu ila kibarikum fa daaka yaxrumul ola kon yaakaar naa ni leçon bu mag la ndax tey la ko suñu borom faye loolu jotaay bi ca la bokk ndax bu fekkoon ni sàkkuwut xam-xam bu wér ba pare jëfe xam-xam du am du am jotaay bi moo tax suñ suñ Tuubaa jàngal ñu bu ngeen ñu yeexe jàng xam-xam ndax ñàkk jàng xam-xam daf lay xañ ak kawe ca yàlla ak ci nit ñi ndax mbir mooy dugg ci amoo ca xam-xam ak gàcce nga cay jugee yaakaar naa ni loolu mooy premier tomb bi nga xam ni am na luñ ci tënkoon te waxtu bi xaw naa xaw nañu tënk dañuy taxaw ni foofu bañ ñëwaat fi ñu jàll ci beneen point